di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy euh, njëkk nuyu ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mi mi ngi fàttali aussi jiitu réew Mauritanie. aussi ni mu nàmmee liggéey. Mhm. pour que Afrique nekk continent mhm. une Afrique. de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën a ba ngoog président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy euh, ñëw nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes mm. manaam dal bi seetlu nañ ko si moom teey bi seetlu nañ ko si moom. dal na yar bi seetlu nañ ko si moom. mën nañu jàpp ni royukaay la si ndawum Sénégal maanaam tey jii mooy représenté ndaw yi nga xamante ne ñi ngi juddu après les indépendances et après et après maanaam 1980 bi Senghor di joxe pouvoir bi si lay juddu ans après. mu ñëw nekk président de la République du Sénégal. ba ah, si nekk séeréer comme Senghor. Ah, yow moom yow yéen ñaar moom ma ngoog si buuru Moro moom kon euh, son excellence euh, Adama Barrow di njiitu réew Gambie mooy ndokkeel noonu président euh, Bassirou Diomaye mais Ibrahima est-ce que nekkul le plus jeune sax président de l'Afrique je pense que. africain fi ñu toll nii président africain yëpp moom moo ci gën a ndaw ah. fi ñu toll nii waaw li ma si si li ma si jot a xam. ma Afrique yenn saa yi moo am ay changement yoo xam da lay bett waaye si li ma si jot a xam moom mooy c'est le cadet ah des des présidents élus dans ce continent africain. Et il vient du Sénégal. Et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure. Au-delà de son élection, c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur. Mmh. de ce scrutin du 24 mars 2024. de la république yëpp. ñu nekk ci réew meeg bitim yëpp. waaw wax na ko ñoom tamit jàpp nañ ci parce que bon euh, rek euh, jot ci waxtaan ak ñaari nit. Euh, bon comme on dit ci nekk mën a liggéeyal muy Manakhoun wala si diaspora bi fële Tokyo ñu lay nuyu Sénégalais yi unis États-Unis ah, Italie waa France ñoom ñëpp macha allah. voilà Europe Amérique xam nga Sénégal ak drapeau. président Guinée Bissau ah, président Guinée Mamadou Doumbouya nee surprise bi Ibrahima. waaw. vraiment lii moom neex nañu lool lool lool. moom comme ni ñu koy waxee. xale yi comme ni ñu koy waxee am na buzz am na il a la cote. am parce que xam nga nag. <laughs> saa yi ko tuddee rek gars yi tàccu. ak ni ñu mel ak waa Guinée loolu moo tax bu ñu tuddee seen njiitu réew wax dëgg yàlla xol yëpp ay feex. moo tax waaw am na kàddu yu ñuy dégg fan yi sax si yenn mbir concernant étranger yi fii Sénégal wax dëgg yàlla Sénégal ak Guinée. benn dëkk la moom Guinée moom ñu ne ko ñoom ñoom benn lañu. dëgg yàlla. acca président Cap Vert. le président Neves qui vient également saluer le président de la République du En direct sur la ces images euh, son excellence rafet la ñuy gis nii macha images de l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président du Nigeria. le président Tinubu. bu soloo nii sa xel dafay dem ci Olusegun Obasanjo xam nga nii la daan solo. macha allah Nigeria ñoom xam nga ñoom. il est devenu observateur je pense. oui ci affaire élection yi. président président des des observateurs africains. monsieur Thiemoko Meye Kone. président bu Côte d'Ivoire mooy ñëw. maa ngi wax moo doon ancien gouverneur BCEAO yàgg Dakar fii nekk ci bi. mais président Alassane Ouattara tànn ko def ko vice président yebal ko fii mu ñëw représenté ko si investiture euh, président de la République du Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal voilà la même famille hein, mm-hmm. qui se retrouve euh, et c'est pour cela on les a laissés euh, gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. président du conseil national de la République du Mali le président de l'Assemblée nationale euh, voilà du Mali Diao qui vient saluer également mm-hmm. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye quand il parle de souveraineté mm-hmm. c'est dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique mm-hmm. parce que de plus en plus on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qui peuvent se prendre en charge avec des leaders à la de leur mission et des, des attentes. On a reçu tous des Mali, des Gaïtatou, Guinée parce que dafa mel ni dafa am message bu ñuy lancé Burkina Faso pour wane ni Afrique mën na demal boppam. Mhm. teewul nag dinañu liggéey ak. Euh, puissance puissance euh, étrangère yeneen dëkk yi mënul ñàkk. loolu moo normal te Bassirou président de la République. Euh, fàttali na ko sànq ci discours am ni mënul mënul ñàkk faw nga liggéey ak yeneen i réew ci Afrique ak ci biti euh, yeneen continent yi premier ministre la République du Rwanda Ibrahima am na nga xam ne buñ leen ci formé sénégalais yi dinañu mën a demal seen bopp euh, l'essentiel rek mooy nañ leen ak tàggat bien sûr parce que mm-hmm. xam-xam du italien mm-hmm. du américain mm-hmm. du sénégalais xam-xam du japone xam-xam nit nit moo ko moom nit lañ ko jagleel la ko saa borom jagleel kon lépp lu nit mën a def rek boromam boromam mën na ko def suñ ko tegee si condition yi tax mu mën a sàkku xam-xam ba pare jëfandikoo xam-xam bi ut si njëriñ ba pare di dundal xam-xam comme kilifa yi yu mag yi ni koy waxee kilifa diine yi mm-hmm. ndax xam-xam dafay am njëriñ te loolu donc dans dans son discours tout à président conseil constitutionnel fàttali na ko jeunes yi espoir bu ñu am si moom moom aussi nee na dina def kéemtalaay kàttanam pour mën a. Euh, moom ka jox na ko conseil yu am solo ka na ko conseil yu am solo. parce que li ñuy wax si xam-xam man ay tubaab bi du nit moo amatul. yooyu wax mu xewi la. tubaab bi nit la mooy créer avion africain yi ay nit la ñu mën nañu créer avion su leen neexee mën nañu créer ay oto mën nañu transformer produit yi jógee Afrique c'est vrai que ñoom occidentaux yi seen technologie moo gën a kawe tey soo bëggee liggéey si pétrole faw nga woo leen mhm. soo bëggee defar avion faw nga woo leen soo bëggee wala nga dem jàngi fa seen kàpp xam-xam na mais du xam-xam boo xam ne ñoo ko moom xam hmm. ko moom. ministre des affaires étrangères. kon président commission lii mooy wane xoolal président de la république du Sénégal 44 ans. Mm-hmm. jàng a connu que commissaire de police la bëggoon nekk. Mm-hmm. monsieur jàng def yeneen concours dem kon xam nga yooyu yëpp day wane ni dara jombul doomu aadama wala surtout sénégalais. sénégalais Ibrahima lu mu bëgg doon mën koo nekk. l'essentiel rek mooy nañu ko nañ nii nii nii. le président de la commission de la CEDEAO. xam xam nga xale yi fi mu nekk nii ni ñuy takk ne euh, filière technique yi maanaam ñu ngi jël affaire technologie surtout étudiants yi mën nañ defar seen avion l'essentiel na leen jox moyen mais ordinateur mooy wane ni xam-xam kenn moomu ko. Ah, parce que lu japonais bi di def wala sénégalais italien bi wala américain bi def suñu doom yi dañ koy def léegi. Abdoulaye Diop président de la commission de l'UEMOA Senghor, c'est notre mhm. voilà, qui dirige euh, cette instance euh, sous-régionale, une institution qui travaille pour l'intégration économique euh, et monétaire dans la sous-région ouest africaine, Abdoulaye Diop, gëm. monsieur le suñu mun lay dem si yenn mbir yi. ñu dékk ko ñeneen. ñooñu nekk. ay ay c'est le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. Ibrahima mu ñëw félicité voilà. mooy ñëw nuyu président de la République. ay institutions yoo xam ne faw ñu liggéey faw ñu liggéey waaw faw ñu mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. c'est le pouvoir législatif. et le mm-hmm. pouvoir exécutif voilà moom donc. juges yi ñoo ko installé. mais après ñoom toog seen place jàpp seen ñaambur. Ibrahima Aminata Mbengue Ndiaye ñëw au conseil des collectivités territoriales. voilà la troisième institution mhm. du Sénégal. ñoom ñëpp teew nañ fii parce que dañu respecter protocole républicain gis nga président Bassirou Diomaye Faye lu mu def dafa jóg dem fekki ko. ah oui oui comme que président Aminata Mbengue Ndiaye waaw ma ngoog dafa am tuuti jafe-jafe. Mhm. si tànk yi moo tax mu dem fekki ko te loolu loolu yar moo koy maye. non non dafa yaru. am na solo loolu. xam cëru mag. te mhm. loolu il faut ndaw ñi gën ko xam aussi. moom président bi di wone exemple si jikko. Eh, yu rafet dañ ko war a roy institution yi noonu Abdoulaye Daouda Diallo conseil économique président du conseil économique social et environnemental ils se connaissent parce que ñoom ñaan ñëpp ay inspecteurs des impôts <laughs> xamante nañu bu baax liggéey nañ fa euh, daje nañ fa ñoom voilà Sénégal nag bëri na ay inspecteurs des mm-hmm. impôts ay domaines yuy def politique de plus en plus voilà ñu voilà